11 bulls to institutions, individuals, and some communities. We are also giving the remnants of the sugar. We have about 7,180 sugar bags of 10 kilo each that we are going to give out. su si jógee tamit dañu am présentation yu nga xam ne tey dafa ñu war a présent Modou CEO bi dañ ko defal toogu ak mbuba ku ko mbuba bi mooy téelo bi mooy Modou Saliou Diallo ak ku ko jox bi mooy kapinta bi Babou Diaw ñooñu tamit tey dinañ def seen presentation. Okay, I want to start with the bulls. Uh, Farato community, Sose Koli, one for him and his community. Yundum Army Barracks, Fajara Barracks, the prisons, Banjun Police, Abuko Nema, Fajara Home, VDF staff, Waka Conte family, and SIFO. So these are the communities and institutions, individuals that we will give will be giving bulls to each. This is not the first of its kind. It has been happening. Sometimes we receive it from Abuko, sometimes different locations. So on behalf of the IGP and the police command, we send big thanks to the foundation for their kind gesture that they have been doing. Anyway, lu mau def ñu bari nekkuñ diko fi def bari nañu fi am alel wa ñu ngi tedda seen kaw alel yi duñ ko gëné duñ ko saraxé yalla nako yalla may gudda fan ak gu yaram. tay mo nekk suñ ñetteeli yoon fi ak Modou Touro Dabo ah, at bu nekk dañ dee ñëw pour award ko lolu diggé la. diggéey nag boor la saa ñu ko yàlla munuloo ñu àggale diggéey bi because dañ gis lu moo liggéey si réew mi soo liggéey bi moom maa ko liggéey Saal moo ma ko santa pour ma liggéeyal ko ko pour awat moo trop daaba so bi nekkul first time ñu liggéey ko liggéey nañ ko ko moo time liggéey nañ ko moo time soo job bi ñun suñ job la mun nañ ko wax dëgg yàlla soo liggéey bi kontaan nañ si trop ndax ki ko defal moo tax ñu kontaan si ndaxte ki ñu ko defal daf ko jar daf ko mérito pour ñu defal ko ko Jino modu akatanya eh, moti ko dunia ala mabak. Uh-huh. anim But mul Vision foundation did not leave security behind. Mm-hmm. They always uh, be on us side by side and I'm thanking him behalf of my CEO and all entire Gambia armed forces and all security. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت fi ma أعطيت. We are thankful to all of you for coming and witnessing this last gift that we are doing in the Ramadan and then we wish you well and that we witness another Ramadan in good health and prosperity. Thank you very much.